di ñëwaat ak yéen seen bind yi e, waa Muxaddamatul Xidma baaxoo seq ak daara ji ci daara Sëriñ jumaa ji muy daarul maarifa al islaamiya ñu fas yéene weddiwaat kon di jaajëfal suñu kilifa gu mag gi e, sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate ak sëriñ Xaafiya Buso mi njiital daayira bi ba ci suñu sang bi jiite liggéey bi sëñ Abdu Xaadir ak équipe bi mu àndul ñëpp ñi ngi tolloon nag ci ñu ngi woon ak yéen ci tasawudu siqaar euh, ñetti pàcc yi ni ñu ko xamee benn pàcc bi njëkk bi jàlloon na muy imaan ak juróom-benni xaaj ak seeni faram-fàcc ñu ngi ci pàcc bi njëkk nag ci ñaareelu pàcc bi muy islaam ginnaaw bi ñu bi mu génnee ci sikar li ci li ci njëkk muy julli mënee su ta wax euh, julli ca waxuñu laab moo tax dafa mel ne foofu la ñu yemoon ginnaaw bi mu wanee atteb julli mooy lan ba noppi ñu tàmbale fii dugg ci rythme majalis ba pare doo koo tënkaat faslun aji teqale fi taxaarati ci laab inna taxaarata naga laab wajaba da war na la dee naa ci ñun zikran ci tuddugay alquran wa sunnatan ak sunna wa sabat sax na yit it xam ci dajaloo boroom xam-xam yi taarikuha aji bàyyi ko bi xayri usrin ci loolu ngànt loo xam ne xonqilaa xeloof na ko yuxtalu def na ko rey xaddan rayub gëtañ doona kufrin walis rey bi fa xaqilaa xelul et si salaatu naka julli laata timu den mi mat abadan faaw illaa biha ndare laab eh, badaa feeñ na wujubuha ak waram xataan di lu dog mu jiital bunt bi kon ci wàllu laab daal di wane ne laab kat eh, niñ ko xamee ci eh, addis yëpp rek yi dëggal ne laab mu ne laab laab nag ci ñun farata la ju mënta xam ne ci ñun mat ci mathab Malik alquran andi andina firnde yi firnde yi sunna it muy addis yi nañ firnde yi boroom xam-xam yëpp it dëppoo nañ ci luy wane ne laab lu mënut a ñàkk la ba andi nañ ñoom it firnde yi kon foofu la ñuy tàmbalee foofu la foofu la tàmbalee tey ci laab laab nag ci liñ koy defee muy ci ndox meeg yëpp dana ci ñëw wa anzalna mina samaa'i maa'an tahuuran ak ya ci aju daal di wax waxit atte bi ginnaaw bi ñu xamee ne kon laab farata la lan mooy adilla yi mooy alquran moo ko wax ñaareel bi it mooy ñëw na ci sunna addis yu bari majmuh min al adilla borom xam-xam yëpp it dëppoo nañ ci ne laa bi lu mënta ñàkk la mu joxe attem nag ki nga xam ne daa amut ngànt ba pare bañ a laab mu ne kooku moom euh, duñu ko jàppe ab yéefar de ndax ba léegi nee na ci diine ji la nekk waaye nag danañ ko rey rey bi ray reyu gëtëñ teg ci kawam noonu lañ koy faate ndax julli mënta mënta mat ci ludul ak làpp waaw kon nit ki bu fekkee ne dafa dafa dafa bañ ak waram rek de loolu day daal di war ci moom ñu faat ko ginnaaw bi mu waxee nag atteb laab ak farataam ba ba noppi nag mu dugg ci bunt bi daal ne fas lu nu aji teqale fil xaddi ci ñaaxee xal ijtihaadi ci farlu fi tamyiis ci jeqe jeqee mooy ràññee baynal faraa'idi diggante farata ya wa fi adami alxufuli hanha ak ci ñàkk sàggan ci farata yi mu ne bunt bi day ñaaxe maanaam day soññee ci nit ki mën a ràññee diggante ay farata lu aj ci farata yi lu mel ne sangu lu mel ne eh, jàpp yooyu dana ci ñëw daat ci indi ak ràññale gu gën a leer koo xam ne da koy benn bennal bunt bi day tax nit ki bu ko jàngee mën a bañ a sàgganati ci yooyu mu daan ne inna alladi ndaal ka nga xam ne daxala tàbbi na fi salaati ci julli wajaate mu dikke eh, bihaa ci julli ga fii ahsanil hayaat yi gën jaarafeti melo maanaam bi an yusalli mu julli kama amara naka mu ko digale allahu yàlla mi nga xam ne subhaanahu tudd naa sellam nga xalaa watfin ci melo yi nga xam ne zahar feeñ na mu ne ki nga xam ne ñëw na ci julli bi mu ñëwee ci julli nag ñëwee na ci ci melokaan yi ñuy jullee yi gën a rafet ci yi ñuy jullee moom daal bi mu ñëwee julli na comme ci melo yi ñu xamee nit kuy julli jullee na ko comme ni ko yàlla digalee maanaam wa akmala matale na ruku'a rukkoo ya wa sujooda ak sujood ya wa akmala matale na alxiyaama taxawaay ba wal xuxuuda ak jekkiwaay ya ak toogaay ya walam yëkku nekkul daal taarika say indi aji bàyyi yëf xat jalaa lool boobu feeñ na miin haa ci julli wa baxda liftiraaxi waaye ginnaaw ba mu noppee nag suy laa laajeef ko xam xamaalaha walis la ko ñeeloon maanaam lim doon def la ca nekkoon min al faraidi ci ay farata wa ma laha ak la ko ñeeloon min a sun min a sunna ni ci ay sunna xindal xuluma fa borom xam-xam ya mu ne nit ki bu fekkee daa ñëw di julli ñëw ci melokaan wi ñu xamee julli mu defe ko noonu mu rukkoo rukkoo yu mat sëkk sujjóot sujjóot yi mat sëkk taxaw taxawaay yu mat sëkk toog toogaay yu mat sëkk comme ni ñu xamee nit kuy julli ni ñu ko xamee ci boroom xam-xam ni ñu ko jànge mu defee ko noonu bàyyiwu dara ci bi mu julli ci ni mu waroon a jullee ginnaaw bi mu jullee ba noppi nag ñu laaj ko nag ci julli googu mu doon def laaj ko li lii li mu doon def lan moo nekkoon farata yi lan maanaam lii nga doon def nii taxawaay bi ndax farata woon wala ndax déedéet toogaay bi lan la woon euh, yëkkati ko bi ci rukkoo bi lan la woon jàng faatiya lan la woon jàng saar wi lan la woon yooyu yëpp dana ci ñëw leeral leen ko bi ñu ko laajee yooyu yëpp nag eh, bi ñu ko laajee yooyu yëpp nag ne loolu lan la ci borom xam-xam yi wax ne mooy ab atteem maanaam ñu laaj ko wa hukmiha ab atteem hal hiya ndax moom loolu mu doon def mafrudatun lu ñu farataal la woon awala mandubatun lu ñu sopp la woon awala sunnatun sunna la fii maa rawoo la ñu soloo ñoom borom xam-xam ya ñu laaj ko ko waaw yow lii nga doon def moom lan la ndax farata la wala ndax sunna la wala lu ca borom xam-xam ya wax ban atte la borom xam-xam yi jox biñ ko laajee loolu mu tont ne falam yëkku nekkut yaarifu di xam moom moomu doon julli ca defe woon ko ci ngën jaa rafete melo yi ko laajee falam yëkku nekkutoon yaarifu di xam mimma su ilaa ca lañ ko laaje foon say an dara waxaala mu wax nag lilladi ñeel ka nga xam ne xat sa ala laajoon na ko daan na ko afxalu man man daal doon naa jëf eh, kamaara aytu naka ma gisee woon net rek annaasa nit ña yafxaloo na ñu koy def xëy na naasu waxtu wa nga xam ne nit ñi yaxbu doon dañuy jaamu seen borom mooy mu ne waaw mu ne ko man daal mbir yi daal dama ko doon defee rek comme ni ma gisee nit ñi bu ñu dee jaamu seen borom ni ma gise woon ñu koy defee noonu rek laa ko defee mayit ba mu agsi fii fa wax na baxdu naa baxdu naasi fa xaala wax na baxdul ulamaa yi lenn ci borom xam-xam ya waxul nag lépp lenn ci borom xam-xam yi wax ne nee nañ lan tuxbalaa deefut nangu salaatu hoo julleem wa udruhu te ngantam loolu mu tegit ba taxoon demul jàngi ji farata yaag sunna ya ngant yooyu lan yox balaa defu ko nangu kenn du ko accepté mu ne bi mu biñ ko waxee loolu nag mu tontu lii daan ne man kat wax dëgg damaa gis rek nit ñi ni ñuy jaamoo yàlla ma fa yéene ko ma fexe ko woon a takkee ni ñu ko doon defee doon ko defee ni ñu ko doon defee rek waaw mu ne loolu nag kooku nag borom xam-xam yi nee nañ eh, julli googu mu def comme xamutoon farata yi ak sunna yi ak mandub yi kenn nanguwut jaamu yàlla googu mu doon def ndax jaamu yàlla ci ci jëf yu mel nii dañ koy jàppee eh, ay jëfi tabaxu fiya eh, al aslu fihi al mano dañ lay tere nga def dara ca xamoo danga ngaa war a xam ba pare doo ko def ah, mu ne nag ngant li nga xam ne amoon na ko it ba ñàkk dem jàng ji ay farataam yooyu ak i sunnaam ngir xam ko ngant lu mu fa man di tegit borom xam-xam yi nanguwuñ nanguwuñ ngantam loolu ndax ca loolu it dafa yaatu lool léeg nga gis ñoo xam ne mën naa am mënuñoo julli mën naa am sax faate yi ñu tari mënuñu koo liir waaye ci njàngum càmmooñ jàmbaar lañ cay loon doon lool léeg nga gis ko ci ñi nga xam ne bi seen njariñ nekkee ci jàngi oto mën nañ koo dawal ci moo gën a jafe fopp jàng farata yeeg sunna yi bi seen euh, njariñ nekkee ci yeneen liggéey yu gën a compliqué gën a laaj am njàng gën a laaj xel ak settantal dem nañ ba xam ko waaye lii nga xam ne moom mooy li mënta ñàkk ci ab jullit jéemuñu ci dara moo tax mu ne borom xam-xam yi yenn yi nee nañ ngant loolu duñ ko am donte nag am na borom xam-xam yoo xam ne dañoo sukkandiku rek euh, ci euh, ci addis boobu di wax naan sallu kama raaytumo nii usalli dee leen julli comme ni ngeen ma gisee woon may julli ci lañ sukkandiku ñoom ñenn lenn ci ñoom bay wax ne kon kat euh, julli gam defoon baax na moo tax mu ne kon baxdul ulama daal ci tegaat ne ni wa misluhu kem loolu fil hukmi ci atteb lislaam xindal xuluma fa borom xam-xam ya man xatta wadda ku jàpp na wuddoo am jàpp moo xam ne xas sama yëkkatiku na xalaa atam mi hay atin ci gën jaamati melo benn xasa mu raxas yedee yi ñaari loxoom li ko xayn ba ca tukku jara ci jiiman ñett xat xasal loolu am na mu ne naka noonu même atte boobu it nii mu lay bëgg a jàngalee jàpp nga xam ne mooy yoon wi ñu ko war a jàngee yow miy jàng mën naa am di ànd ak ñun téere bi moom yaa ngi ciy bëgg a mucc ndax boo ko jàngee rek si ki sàkk googu dañ ci yow ci lool borom xam-xam yi sëkk waaye même boo ko defee woon comme noonu nii ñu koy bëgg a def ba pare it jàngee woo ko da nga ko gisoon ñu koy defit même atte boobu ñu wax ci ki xamut wax jooju ci ngay duggaat ci werante borom xam-xam yi mooy li nga def ndax yàlla nangu na ko ak yàlla nangoo ko kon li gën a wóor daal mooy dem jàngi rek xam ko eh, bu ko defee nga di génn ci sikki sàkk googu mu ne nag gën mati melo ni war a defee njàpp mooy da raxas nga raxas sa ñaari loxo ñetti yoon ba ci say takkukaayu jara bu njëkk mag ñi ci suñu culture ay jara lañ daan takk ci seeni loxo seeni tukk jara léegi nag mooy fi ñuy takk montor rek ca eh, ñëpp gën ko xamee foofu bu bu ko raxasee ñetti yoon wa baxdu ginnaaw ba mat ma damu gàllaxndiku salaasan ñett yoon bistiyaak ànd ak socc mustan mustansixan di aji saraxndiku mbir moom mi aji saraxndiku mustansiran di aji fiiru ci man ñetti yoon xunaaka foofee wa xasala mu raxas la wajjiha xar kanam ga maxal ya day ni ànd ak ñaari loxo ya wal kullu te képp ci yooyu mu wax muy xar kanam gi ak raxas ñaari loxo yi ba ci conc yi lu ci nekk mu def ko bi tasliisi ci ñett ñett doon a say ni ci lul ñaawal mu def ko niñ ko war a defare ci lulul mu koy def definu manki wala defin woo xam ne da caa yokk luñ bokkut ndax euh, bëgguñu yooyu yëpp danañ ci ñëw bu buñ dee tënkaat kon mu xalilan mbir moom muy aji xalil bu fekkee ne euh, bi muy raxas xar kanam gi bopp amoon na lu mel ne sikkim bu woyof mu xaw ko xalilaale wa masaxa mu masaa sa bopp ba warat masixa usnay nii ca mu dellu ca mu dellu siwaat masa bopp ba bu paree masixa usnay ni muy aji masa ñaari nopp yi bi taj yi din ànd ak yeesal ndox ma waral rod na laata mu ngi bi mu raxasee boppam ba ba ba noppi ci lu muy enseigné di raxas ñaari nopp yi mu laalaat foofu ndox mi loolu la ñu tuddee yeesal ndox mi dana la wax ba tey fi mu dëkk ci yim lay moytuloo mooy fan la dëkk ci farata yi ak sunna yi nañ topp duruus yi di ñëw danañ ko ci gis waxasala mu raxasit ar rijlay ni ñaari tànk ya saa taxlil li boromuk xallil wa kammale te matale alu doo njàpp ma bi taj mi li ci rafetal Euh, tey jàng nañ lu mu néew néew yow génn nga ci daayirab ñàkk xam wala ñàkk jàng ci yoonu ñàkk jàng ni ñi ni ñuy jàppoo mu ne euh, dafa laa waxoon ne borom xam-xam yi dañ ne nit ki nga xam ne gis nañ ko mu def farata maanaam comme jël nañ jàpp ñu teg lu mel ne exemple ci jàpp gis nañ ko mu jàpp comme ñu gën jaamati meloo yi nañ war a jàppoo def na li mu war a def lépp waaye daal xamut farata yi xamut sunna yi xamut dara ci yooyu loolu même àtte bi li waxoon ci julli rek ñooy am lu ëpp ci yi dañuy jàpp ne jëfam joojee kenn du ko nangu ndax la muy def daa bokk ci euh, sawaabit yi nga xam ne al aslu fihi al manan la mooy bala ngaa def dañu lay tere nga def ci jàng goo ba xam ba noppi boo defee mooy tax yàlla da koo nangu leneen ci borom xam-xam nag daal ne déedéet ndax gis nañ lu mel ne jullikat yonente bi bi muy wax ak malikum na xakam dane ko woon sa sallu kama raaytumuni usalli bu ngeen demee daal julli leen jàngal leen seen fa ngeen jóge woon na ngeen leen jàngal seen diine rawatina julli julli nag na ngeen leen jàngal julli comme ni ngeen gisee woon ma koy defee rek ci maalikum mu xaka xakam kon jàngutoon dafa mel ne eh, lam jàngoon ci yonente mooy lam gisoon yonente bi di ko def la la la jàngale woon eh, kon loolu it moo tax leen danañ borom xam-xam yi daal am la beneen position bu ñu jël waaye nag lu ngir génn ci daay bi sikk sàkk boobu nag la ci gën a yomb rek mooy nga dem jàngi ci jàngi moom lu yomb la boo ko jàngee ci lenn ci téere yi lu mel ne téere bi muy jàngale boobaa danga nga génn ci daayira sikki sàkk ban xonq bi naan dañ la nangu loolu duñ la nangu la nga ci daal di génn mu ne ci àtte boobu nag naka noonu même boo jàppoon ba noppi àtte boobu des ci yow it noonu rek lay mel donte njàpp ma njàpp mi gën a rafet ci melokaan yi war a jàppoo daal ciy jaaree nag daan daal di jàngale nag jàpp jàngale jàpp it ci melokaan wi gën a rafet ci ni ñu ko war a defee mooy nan moo di wane ne mooy dangay raxas sa ñaari loxo ba ci sa takkukaayu jara wala sa takkukaayu montre ñetti yoon boo boo noppee nga galax ni ko ñetti yoon galax yoo xam ne day ànd ak socc galax ni ko nag mooy nga seex ndox mi xaw daal koy xoj xoojal boo ko mënee booleeg soccuwaale nga def ko bokkut ak socc bi nga xam ne da nga koy def avant ngay jàpp ji wala avant euh, lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bi siwaay qabla kulli salaat googu euh, boo bu noppee muraadi sarax ni ko sarax ko mooy ndox mi miy téyee ci bunti pax yi bakkanam xëcc ko ba dugg ci biir waaw euh, buux gi mu koy buuxaat ci ay euh, noyyeem mu génnaat ak doole loolu la ñuy tuddee fiiru loolu lu ci nekk mu def ko ba tey ñetti yoon bu noppee mu raadi raxas gi ñetti yoon mooy tàmbalee ci tàmbalee nopp ba nopp wala euh, kutumbul xar kanam yëpp lu nekk mu def ko ñetti yoon bu noppee daal di xalil bu noppee daal di raxas bopp bi daal di masaa bopp bi dem ak dikk laal ndox yeesal ndox mi ci la bokk doog masaa ñaari nopp yi bu noppee nag daal di raxas tànk yi ba mu set bu ko defee lëkkale ko ci mu tollook ñett it ba tey lu baax la loolu mooy melokaay kaan wi gën a rafet ci ci wi ñu war a jàppoo kon tey suñu euh, duroos bi njëkk fii lañ koy yemalewaat ak yéen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal suñu techniciens yi ànd ak ñun liggéey bi ci seen daara ji euh, waa CMT di taxaw muy daara daarul maarif al islamiya gi nekk ci jumaa ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم